AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV arrahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ahli wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu al uqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada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 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ku ama am solo muy kenn ci eh, mag ñi njëkk a ànd ak eh, doonoon borom pas-pas loolit doonoon mbirub diine ku sell doonoon ab murid bokk ci ñi njëkk a sëriñ bi eh, te bokk ci it ñi njëkk am ngërëmul sëriñ Tuubaa te ngërëmul sëriñ Tuubaa mooy ngërëmul yàlla te wa ridwaana minallaahi akbar mooy sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ Masamba Diop Sam ku teel a ànd ak sëriñ bi la mm, xam naa dañuy barkeelu rek ci euh, lenn ci ay mbiram beneen yoon ñu gën koo yaatal incha allah mhm. moom ma nga cosaanoo ci kajoor way juram wu góor euh, tuddoon sëriñ Maysa Senaba Diop way juróom bu jigéen tuddoon soxna maam Penda Mbay sëriñ Masamba Jóob Saam ku suñu borom booleeg sëriñ Tuubaa la te boole seen mbir ndax moom mi ngi ganee àdduna 1852 sëriñ bi ganee àdduna 1853 ci zahir nga xam ne moom moo fi jiitoo sëriñ bi menn at ci zahir waaye it mi ngi génn àdduna it sëriñ bi génn àdduna 1927 kon ñuy suñ borom teel a boole la waaye ñu dëppale tamit seeni mbir la ngir tënk rek mu ngi gisanteeg sëriñ bi ci daara yi sëriñ Sam Sarr nekkoon ci wetu Pataar waaye fekk itam sëriñ Mamoor Anta Sali doonoon wàllu réew sëriñ Sam Sarr dafa daan ñëw di ko gane nag am bis mu gane ko sëriñ bi sant sant sëriñ Mor Anta sëriñ Masamba Diop Samit daan dem foofee di fa tëralu te ay téere wax nañ ne ba fa àggee dafa taseeg sëriñ Mor Anta Sali ñëwoon fa ak ngan ak sëriñ bi bi sëriñ Mor Anta Sali nekkeeg sëriñ Sam Sarr ci biir di waxtaan nag wax nañ ne foofee la nuyoog sëriñ Touba ca ëtt ba fa lañ njëkk a nuyoo sëriñ bi laaj ko foo toll mu daal di koy ubbil téere téere ba fa mu wax nañ ne risaala la sëriñ bi daal di ko fay tëralal ab bind bind bam ko fa tëralal nag leer gam leer ci moom ak am lu ko dugg leeru suñ boroom dugg ko tax na ba jataay ba tase kenn mënatu koo jàngal bind mu dégg loola it xañ ko sago ba mujj mu mu laajte sëriñ bañ ne ko doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la mag dëkk bu ñuy wax Pataar ca la fa demee nag ne ko yow kat yaa tax a jóg sëriñ bi ne ko ah surga nu muy dalale moroomum surgaam mu ne ko waaw waaye surga bii de dalal ko du jafe ndax gànnaayu na te mën naa yalwaan gànnaayu na mooy mën naa liggéey te mën naa yalwaan wax nañ ne euh, sëriñ bi daal di ànd moom nekk kon nañ dem ci borom daara ji dem ci Mamour Anta Sali wax ko ko gan gi ak ni mu dikkee mu nangul ko mu nekk fa wax nañ ne guddi gam fa njëkk def rek ba ñuy reer jëwrin ja nga xam ne moo yor liggéey ba dafa wax ci kaw ne eh yéen ñooñu képp ku mën a tibb seex bu subaa na nga dal aw dooñ sëriñ bi daal di koy wax sëñ ma ma ne ko dégg nga li mu wax mu ne ko waaw waaye dafa mel ni gan gi lay waxal ndax dëkk yi ñoom euh, miin nañoo dégg loolu kon dafa mel ni gan gi lay waxal waaye gan gi moom gànnaayu na loolu mooy mën naa liggéey wax nañ ne bañ xëyee dafa ñaan sëriñ bi ne ko dama bëgg nga bàyyi ma ma bàyyaale la saw dooñ dama laa bëgg a wàccee ci tool yi nga féetee ma ci téere bi kon moo njëkk wàccee sëriñ bi ci loolu. ci la jógee nag saa bu ñu daggalate sëriñ bi lu muy liggéey moom mu liggéeyal ko wax nañ ne añ nañ bàyyi ko reer nañ bàyyi ko sëñ bi sax yéex na ko yëg waaye am na bis mu ne ko nag waaye muñal rek bu ñu àggee fa nga xam ne nii ab añ mënu faa ñàkk te am ko fa dana jafe sama loxo su tuut si moo fay sedd la te te te te danaa la sedd muy koo xam ne ni ku amoon pas-pas la te gëmoon sëriñ tubaa lool sëriñ Tuubaa itam doyloo woon ko lool wax na ne sëriñ kër gum daan sanc ñaare dana ko woolu mu ñëw bu ñaanee ba noppi déglu ko mu ñaan bi sëriñ bi demee ci ci géej gi itam moom bokkutoon ci ñi doon sikki sàkka ak dellu sem bi tubaab yi ne sëriñ bi génn na àdduna it moom nattabliwu ko xam na ne loolu du dëgg tax na dafa amoon ay kaaw ci këram di dajale ay addiye di ko waajal bi sëriñ bi ñibbisee ci géej gi mu jox ko ko bi sëriñ bi ñibbisee itam ba dem gànnaar mu jox ko ki toppoon ci taawam di sëñ ma Masamba Diop sëñ sëñ Mut ma sàmba ndax sëñ Moor Astu Diop moo di taaw waaye dafa teel a làqu waaye sëñ Mut ma Masamba mu jox ko sëriñ bi mu nekk foofee ci gànnaar daana fa yónnee ay addi yu bari ba mujj sëriñ bi ne Masamba de daf may xamal ne lantinoor la du tee diw waaye man it de danaa ko xamal ne ko bu ñu àggee ba fa nga xam ne nii mënee su ko faa ñàkk te am ko fa dana jafe danaa ko ko jox moo waa këram ñu jariñoo ko léppam tamit sëñ Tuubaa la woon ni may faral di wax rek mag ñi waxtaanee leen liñ ci jublu mooy yokk sunu pas-pas ak yokk sunu yitte ci sëriñ Tuubaa kon xam naa gannaaw e, gëstu bi matagut lii lañ ci am jëlee ko ci kenn ci ay sëtam ne nañ ko yaatal beneen yoon incha allahu dana gën a yaatu ñoo ngi soññu mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yëpp ci. liggéey waa daara Hikmatul Yawmi ak siyaar bi nga xam ñoo ngi koy waajal Cheikh Mor Muntaxa eh, képp koo xam ne ni bëgg nga cee bokk na nga bindu ci liste yi day ñaari list nag am na liste boo xam ne ni moom ku bëgg a dem rek eh, mën nga cee bindu ku bëgg a ànd ci mbooloo mi mën nga cee boobu tekkiwul ne da war a joxe wala waroo joxe beneen liste bi nga xam ne moom ngeen di gis ñuy affiché nag muy diw joxe na nangam loolu mooy ñi nga xam ne ni dañuy joxe addiya ndax yaakaar naa ku gis Sëriñ Tuubaa da nga ko jox addiya addiya yooyu lañ bëgg a dajale mu doon benn ñu joxandoo ko ko waaye tekkiwut na nag ku joxewul addiye kat doo bokk ci siyaar bi déedéet waaye nag bu buñ sañoon ku ci bokk te nar a jox addiye sëriñ bi ñu dajale ko def ko benn loolu rek lañ ci jublu waaye nag ku ci nar a bokk ku nekk joxe sa bopp itam day baax ndax balañ caa àgg ñu xam ñiy dem eh, ngir màndarga yee ñuy wutal ñay teew ci mbooloo ma ñu xam ñaata lay doon loolu lañ ci jublu incha allah kon na ci ñëpp bokk